fii ci ci Baye Fall ga la sëriñ di Fall moom sëriñ Modou Mbenn mi nga xam ne mooy xalif général des Baye Fall woolu mbooleem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi ci njiital jëwrinam di sëriñ Cheikh Fall moom sëriñ Modou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng ngir ñu dem jébbalal ko Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom sëriñ siiru xalif général des Mourides addiya ji nga xam ne njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall moom lañu dajale ngir jébbal ko ki fi nekkal sëriñ Touba. ñu di ko jox sëñ Touba ak lu mu xat-xat nee na dafa war moom am xelam li mu jàpp mooy fu nu toll rek war nañuy jël sunu ñàkk di ko yóbbu sëñ Touba donte danoo nekk si liggéey yoo xam ne nii si ndigalul sëriñ bi la waaye lii de yoon wi daa baaxoo lii te am xelam du dal lu dul ni mu jël addiyee jii yëg ko ki nga xam ne mooy sëñ Touba di Cheikh Modou Mountakha nee nag mi ngi koy teg sa loxo yaa ngi njaboot sa njabootu bopp gii ngeen àndandoo yóbbu ko yóbbul ko ko si sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha waaw sàpp nag ginnaaw bu leen sëriñ bi ñaanalee ci la kilifa yépp ànd ak sëriñ Cheikh Ndiaye mbeng ñu bàyyi ko fi nga xam ne moom moo di fii ci Baye Fall ga ñoom ñëpp ñu def benn convoi jubali ca daarul tanzil bi nga xam ne fa sëriñ ba nekk ngir fas yéene koo jébbal addiya ji nga xam ne moo bàyyeekoo ci xalifa général de Baye Fall sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda. bi ñu agsee fii ci daarul tanzil dalal nañ mboolem kilifa yi ñu àndaloon ci mbaar mi nga xam ne moo nekk ci kër gi sëriñ bi bu mu génnee présenté nañ ko mbooleem njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi nga xam ne ñoo ñëwoon doon ko jébbal si addiya ji ci njiital sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi nga xam ne mooy jëriñu sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou mbenn mi nga xam ne mooy xalifa général des Baye Fall. jébbal nañ sëriñ bi addiya joo xam ne xayma nañ ko ci juróom fukki million ci sunuy koppar. ak téeméer ak juróom ñetti kaamil ak téeméer ak fukk ak benn saakoy dugub ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak benn butéelu parfum lépp nag di adde joo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall jëm ci kër Cheikhul Khadim. sëñ Assane Fall mu Cheikh Moustapha waaw sëñ Abay Sarr sëñ Cheikh waaw borom jaxas bi waaw leetar baa ngi noonu waaw ah, sëñ Assane moo dolliwaat loolu waaw soxna Roqe ndax sëñ Fallou sëñ mu daan rak rak sëñ Taala la sëñ Cheikh Ngounda mooy jëwriñ nekk Thiès waaw maam Saliou waaw sëñ Cheikh Ngounda Fall Fall sëñ Fallou sëñ Mbacke Fall mu tudde sëñ Wërëyit mu sëñ Fallou Mbar waaw moom mi waaw kooku sëñ Cheikh moom ak ci waa kër sëñ Amdi sëñ Cheikh Fall sëñ Cheikh Fall waaw sëñ Falilou Fall sëñ moom mu Mamadou Falilou Fall loolu lool waxoon te Porokhane waaw sëñ Daam sëñ Dame Fall doomi sëñ Amdi rakk sëñ Cheikh Fall mii la waaw moom la daam jaxat sëñ Assane rakk sëñ Falilou waaw sëñ Assane Fall Fall Ndiégo Fall Fall Fall sëñ Abdou Mbow sëñ Cheikh Mbacké mu ginnaaw bu ñu présenté lenn ci njaboot gi sëriñ bi sëriñ Saliou Fall moom sëriñ Modou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci sëriñ Saliou Fat Sow yëkkati na fa ay kàddu ci tur sëriñ bi ñu ànd teewlu ko. kàddu yu bàyyi ko ci sëriñ Cheikh Fall mi toog. sëriñ Cheikh muy sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mii. mbooloo mii. nee jiite tey mbooloo mii. bàyyi ko ci nag ci sëriñam ba. di sa ndongalee. muy sa ndongalee. nekk janatul maxwaa. fee ca janatul maxwaa. da ko wooloon ci fan yii. nee na da ko wool woon ci fan yii. ni ko damaa bëgg nga ñëw. ni ko damaa bëgg nga ñëw. ànd ak fere yi. àndal ma fere yi. dem yóbbul ma liggéey bi ci sëriñ bi. dem yóbbul ma liggéey bi ci sëriñ bi. booba ak léegi nag am na ay fan. booba ak léegi nag am na ay fan. ndax bëgguma. ndax bëgguma. liggéey bi fekk fi liggéey bii. liggéey bi fekk fi liggéey bii. te liggéey bi jub jub te liggéey bee nag jub si na. muy liggéeyum ndogu yi. muy liggéeyum ndogu yi. loolee nag. nee loolee nag. moo waral lii tey. moo waral lii tey. moom mii nag. nee moom mii nag. keroog ba sëriñ am di toogee xalifa. keroog ba sëriñ am di faal toogee xalifa. nekkal fi Cheikh Ibra. nekkal fi Cheikh Ibra. la daal di dem joxe boppam. la daal di dem jox ko boppam. ñun ñii mu bokkal Serigne Modou Moustapha it. nee ñoom ñii mu bokkal Serigne Modou Moustapha. ñu ñëw jox ko suñu bopp. ñoom ñëpp ñu àndandoo ñëw jox ko seen bopp. ak kër yëpp kër sëñ Modou Moustapha yëpp. ak kër sëñ Modou Moustapha Fall yëpp. ñi mu meññ ñëpp. ñi mu meññ ñëpp. su ko defee. nee su ko defee. ñii ci des. nee ñi ci des. ñooy kër yi nga xam ni. ñooy kër yi nga xam ni. dañoo seq ak sëñ Modou Moustapha Cheikh Ibra. dañoo seq ak sëñ Modou Moustapha Cheikh Ibra. benn ci sëñ Taala bi. nee benn sëñ Mor Taala Fall ngi nii toog. waa kër sëñ Mbacke Fall. sëriñ Mbacke sëriñ Cheikh Cokke. waa kër sëñ Maam Saliou Fall. waa kër Maam Saliou Fall sëriñ Cheikh Ngunda Fall a ngi nii toog. ak ñëpp rek. ak ñëpp rek ñi mu àndal. ak njabootu sëñ Modou Aminta. ak njabootu sëñ Modou Aminta faal gi. ak ñeneen ñi nga xam ne sëñ Modou Moustapha moo jur seen waajur. ak ñeneen ñi xam ne sëñ Modou Moustapha moo jur seen waajur. muy kii taxawoon léegi di wax. muy ki fi taxawoon léegi di wax muy sëñ Cheikh. ak ñeneen ñi demee ni moom. sëriñ Moustapha a ngi ne mu sëriñ naa ak ñeneen ñi demee ni ñoom. wax bi damay bañ mu gudd. nee wax ji kat day bañ mu gudd. te toogaay bi day métti ci sëriñ bi. te toogaay bi day métti ci sëriñ bi. li ci am solo daal. nee li ci am solo daal mbàkke. addiya ji. addiye ji moom la sëriñ bi doon joxe si. moom la la sëriñ bi doon jox si. moom la ñu la jox noonu ci. nee moom la la jox noonu ci bataaxal bi nga doon jàng. waaw loolu. nee loolu. mooy li nu tax a jóg. mooy li nu tax a jóg tey jii. xanaa leneen li ci des. nee xanaa leneen li ci des. mooy nga ñaanal ko nag. mooy Faal Mbàkke nga ñaanal ko. ba mu jekku sa ndigal. ba mu jekku sa ndigal. moog njabootu Cheikh Ibra gii mu àndal. moog njabootu Cheikh Ibra Faal gii mu àndal. amuñu jenn yitte ci àdduna. ndax kat amuñu jenn yitte ci àdduna. lu dul sa sa bëgg rek. lu dul mbàkke sa bëgg rek. di la jëfal rek. bëgg la mbàkke jekku ndigal ba di ko jëfal rek. boo gisee mu def lii. nee boo gisee nag lii sëriñ Amdi Fall xalaat def ko. liggéeyam ndog yi dafa jub si. liggéey bii ci sunu kanam. muy ndogu yi dafa jub si. te danoo bëgg. te da kat daa bëgg. nu mu daan mel rek. nee nu mu daan mel rek. mu romb ko. nga ñaanal ko mbàkke sëñ am di romb loola. loolu daal nee loolu daal. mooy li taxoon a jóg tey jii. nee moo taxoon a jóg sëriñ am di mu yebal rakkam yi ñu ñëw. te nga ñaanalal nuyu sunu jëwriñ ji. ñoom nag ñoo dellu di ñaanal kii sëriñ am di Fall jiital. muy sëriñ Cheikh Fall. sëriñ Cheikh Ndiaye bi. muy sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng mi. yaay sama jëwriñ. ndax kat yaay sama jëwriñ. dafa diis. nee dafa diis. kon mat jëwriñ rek. kon mat jëwriñ rek. moo koy mën a doon. moo koy mën a doon. ba tax na. ba tax na. nga ñaanalal ñu ko. nee nga ñaanalal ñu ko. moom it fi bëgg a yóbbu yor moo nee moom it fi mu bëgg a yóbbu lii mu yor mu yen bi. yen mooy li nga xam ni. nee loolu mooy li nga xam ni. kaddu yi nga yi ma sëriñ ni. kaddu yi ko sëriñ bi waxoon ni. bu egsee naa ko ci dolli. bu egsee dina ko ci dolli. loolu rek la mbàkkee. nee loolu rek la day mbàkkee. mu nag. nee murit nag ñoo àndandoo waat ñoom it di la ñaanal. Mm, ca nam ko daan waxee rek. ca nam ko daan waxee. njabootu Cheikh Ibra gépp. njabootu Cheikh Ibra Fall gépp. nee sëriñ Saliou Fall nee na ngi sàkku sàkku ci ñoom. ñu ñaanal sëñ Muntaxa mii. fu waay nekk tey jii nga wax ci saw làmmañ sëriñ Muntaxa Mbàkke mii. ci barkeb Cheikh Ibra. ci barkeb Cheikh Ibra Fall. yal na yàgg. yal na ko saa borom gën a yàggal. te yal na wér. te yal na wér. na ko ñëpp nee na ko ñëpp wax Serigne Saliou ngi sàkk loolu. nee loolu daal. nee bëgg na murid yi jàppale ko ci. nee na ci ñëpp jàpp. xam nañu taxawaay. Mbàkke murid yi xam nañ sab taxawaay ci yoon wi. waxuma yoon wi rek waaye lislaam. nee waxul yoon wi sax waaye lislaam jépp. ku ci bokk ku ci bokk. te xam la te xam la. gis na saw doxin. gis na saw doxin. rawatina nag. rawatina nag. yoonu murid wii. yoonu murid wii. ndax gis nañu. ndax gis nañu. sag topp sag topp. ci ñi fi daan jiitu. ci fi jiitu woon. ba nga agsi fii tey tey. gis nañ sa topp. gis nañ sa topp. saw doxin. gis saw doxin. dégg say kaddu. dégg say kaddu. ak say jëf. gis sa jëfit. kon dara umpu kon mbàkke dara umpu ñu ci. moo tax bëgg nag. moo tax nag ñuy ñaan ca bëgg. nga yàgg fi. nga yàgg fi. te nga ànd ku wér nag. jërëjëf mbàkke jërëjëf mbàkke dugub jaa cooto bi moo bàyyi ko woon ca daara yi lépp bëgg sëñ am di nee daa bëgg lu mu yor ci murid yi jox ko ko rek mu mu raw liggéey ba nga ko jox ca mbàkke gis nga ko waaye ndeke jekk mu soññi sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng ni ko lu sëñ Cheikh jëmb daan def sëñ Modou mi daan ko def ak suñu waajur ya su ma sañoon loolu rek laay def keroog ba mu toogee lim njëkk a wax ñaan li ma jox sëñ Mountakha milliard kon fit wa rëy na jom ji rëy na bëgg ga rëy na kattan gi rek a ci des na ko am nag rakkam yi buñ ko amee sëñ am di li mu bëgg dina am waaye sëñ am di li mu bëgg su ko amee mbàkke loo bëgg dina ko def lépp Serigne Touba Cheikh Rafal la ko yor te mooy Cheikh Rafal yaay sëñ ginnaaw kàddu yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi am na kàddu yoo xam ne Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou mi nga xam ne mooy xalif général des murit yëkkati na ko santaat bu baax a baax njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gi feddaliwaat ak laxasaayam fas yéene ànd ak ñoom liggéeyub Serigne Touba bi. waaw nee na nee na loolu doy na sëkk nee loolu rek moo fi nekk nee loolu yóbbaale na lépp nag. sëñ Saliou nee na dégg na sa kàddu nee na fa tabaarakallaa nee na mat na sëkk rafet na lool nee nag ñu ci amati mbégte nee mu rëy rëy rëy nag nee kàddu gu njëkk googee rek googee mu waxoon nee tey jii la ko gën a wax bàyyi fal bu dëggal kenn xamul doon alhamdulilah kon nee na alhamdulilah rabil mu gën a santaat rek. nee ci jataay bii mu jataayoo yéen. nee na jataay bi gis na ko de. sori na ci moom lool. nee na sori na ci moom lool. soññati na ma nee na jataay bi soo soññati na ko. nee du ci dolli dara. lu dul li ñu seereel nu nu. nee mi ngi ñuy seereel ni. moom Cheikh Mouhamadou taxa ñun Baye Fall mi ñuy seere ni mi ngi gën a jaay yeesal ak jaayanteem diggante na Cheikhul Khadim nee di gën a feddali ak laxasaayam. fas yéene koo ànd ak mboolem taalibe yëpp. fas yéene koo ànd ak mboolem taalibe yëpp. waaye nag yéen ñi toog yéen a nekk ci kanamam. nee mu fas yéene ko ànd ak yéen. incha allah nee jërëjëf. nee jërëjëf nee cant rek la mën a wax wëri si waa ngoog nii la ko sëñ Cheikh jëmb daan defee lii mooy àddee ji nga xam ne moom la njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall ci njiital xalifa bi di sëriñ di fal moom sëriñ Modou Mbenn mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh doon jébbal tey jii ci talaata ji dëppook fukki fan ak juróom ci mars atum 2022 xalifa général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha moom sëriñ Bassirou di ko ñaanalaat mu gën fee yàgg lool te gën a wér waaye di ko ñaanal xalifa général des Baye Fall sëriñ Amdi moom sëriñ Modou Mbenda mu yàgg indi àddee ji yàgg fee fekk sëriñ bi ñoom ñëpp ñu ànd liggéeyal cheikhul xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa